jaar dina fàtt naa ko sax am na ci ñoo xam ne wallahi lazim japon japon dañ fay juge sànq maa ngi koy góor mi ci yoon bi ñëw ba ba Brésil gii xam lu leen fi indi golo Golobo lañ bëgg a naan barki sañ Tuubaa vacances la ñuy jël laa jugee Japon ñëw ba Brésil Golobo moo leen fay yóbbu am na ci ñoo xam Ipanema ak Copacabana moo leen di yóbbu Brésil muy ñaari plage yooyu te ci caaxaan képp lañ ne barki Cheikh Khadim kon defe naa ne buñ ko jëlee teg ko sañu kanam wallahi lazim buñ dee dem Brésil gii ngir jëmmi màggal sëñ Tuubaa gi màggal ko si dem yi wallahi lazim xoolal lay warta am ñun ñëpp war a dem murid saadiya kuréel gi yëpp war a dem mu mel ni su ngeen gisee jataay bii rek am na lu ko waral ndax xasida moom dafa bokk ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga xam ne nii mën naa ne moo téye àddina ba tax na daayira Miftaaxu Nasri ci njiital jëwrin Mor Talla Sall waaye kuréelu miftaaxu nasri ci njiital jëwrin Baye Cheikh Dieng ak sëñ Ali Ba ñoo am bis bu ñuy waajal boo xam ne mu ngay ame ca Touba Brésil moo waral waa kuréel gi di répété façon répétition boo xam ne ku ne xam ne ne tey jii di bésub dimanche dañu fee yendu di répété loo xam ne naka jekk kuréel gi noonu lay doxee waaye nag ku ne xam ne ne bu ñu waxee bésub xasaayit war a am ca Brésil mu nekk première édition boo xam ne waa Argentine war nañu faa jóge war nañu fee jóge fekk ji bis boobu ànd koog suñ mbokki jànkatu xasida yi nekk ci Touba Brésil ca Porto Alegre moo waral ñu liggéey bi ñu koy waajale ci façon waajin woo xam ne nii maanaam am na loo xam ne xëy na suñ baay Cheikh dina ko leeral ni ko waa kuréel gi di waajale xasida yi nga xam ne nii war nañ ko faa jàngi jublu ci nag liggéey liggéeyal Serigne tubaa ci xasidaa bi ndax euh, na mu ko waxoon ne danaa dem ba ci réewu Touba bi dafa yëkkati xasida loolu tey njabootu Serigne Touba gi nekk fii loolu la ñuy biral loolu la ñuy wane ku ne xam na ne Touba Argentine dañuy taxawal bisu xasida waaye naka jekkit Touba Brésil dañ koy taxawal kon bis boobu moom la ñuy waajal moo waral waa kuréel gi ensonné liggéey bi kon dañuy jox rek nu kuréel gi muy sëñ Baye Cheikh Diène laaj ko naka la ñu nekke ci programme bi ak fan la ñu toll ci waajtaay woowu bisimila barke boroom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe ñu ngi leen di ziare bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal suñu Amdi Fall ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp suñu ablaat yaakaar naa kàddu yi du gudd ndax comme noonu ko ko waxee bu ci balaa ñoo euh, dugg sax ci laaj bi dañuy ziyaare suñu suñ góor a Seck PDG wu jëwrinu Touba Argentine TV nga xam ni moom moo doon couvrir maanaam événement bi répétition bi nga xam ni mbokk taalibe yi daje nañ fi te it ñuy fàttali it noonu la ko fas yéenee ànd ak ñun maanaam ci dem gi ak euh, bu ñu àggee ci bis ba waaye tamit ak wàññiku gi comme noonu ko waxee nag kuréel 1 bu Miftahou Nasri Touba Argentine ñuy waajal bisub xasité bi nga xamante ni fédération Touba Brésil yi ñu ngi koy amal euh, di waajal bisub xasité bi nga xamante ni moom la ñu naka jekk euh, ja daan def fële ca euh, Brésil te ren waa Porto Alegre wa aye ko mu mel ni dippi ci wàllu waajtaay ak programmation ñu ngi ciy coordonné ak ñoom ci fànn yëpp fànn koo jël rek ba ci mars bi nga xam ni moom lañ fa war a def ñoom it kuréel sélection gi nga xamante ni war nañ koo def bu ñu àggee ci bis ba te mu war a ubbi njàng ma ak li nga xamante ni moom moo di liggéey bi jëm ci wàllu conservatoire ngir saytu lu jëm ci bis ba ñaata kuréel la ndax kenn ku ne xam na ni bis boo ci jubee doo bàyyi rek kuréel gu ñëw rek daal di toog jàng jàng la mu bëgg a jàng ak nam ko bëgg a jànge ba tax na ñoom seen conservatoire ñu ngi liggéey ak ñun depuis mën naa ni ñaari weer yi bokk ak ñun benn groupe boo xam ni bépp kuréel goo xamante ni yaa ngi ci biir yaa ngi ci trottoiru Latine bi rek te yëg ni am nga wàll wala yëg nga sa bopp ci bis boobu noonu dug dugal nañ fa njiit la waaye tamit waxtaan ak ñoom xam kuréel gi ban effective la toll maanaam ñaata nit la ñu am euh, nan la ñu war a ñëwee ban dëkk la ñu war a jógee waaye fan lañ lan la war a jàng yan daaj ak euh, yan xasita loolu it maanaam euh, bi loolu amee jokkoon nañ ci ak ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo nekkoon représentant wu Argentine ci barab yooyu noonu ba am na programme bu ñu jukki woon boo xamante ni yaakaar naa ñaari weer yi yëpp ñun ñëpp ñu ngi ci ànd di liggéey defe naa ñoom xam nañ ko ñun xam nañ ko teyit bu fekkee lu jëm ci wàllu wàccaay it mën nañ ni 99 pour cent it jekku nañ ko ndax billets yi nga xam ne moom moo ñu war a jëlee fii yóbbu ñu toll ci euh, mu jëm ci wàllu aller retour bi it suñ tubaab defal nañ ci tawféex bu fekkee wàllu dem gi it bu kuréel gi bu fekkente ni 80 bu fekkee 100 personnes lañ mën nañ ni 98 pour 98 yëpp danañ dem ndax. Euh, ñeneen ñi nga xamante ni demuñu xëy na ñaar wala ñett la te ay gàllankoor lañ jàpp ni moom moo leen téye waaye li ci ëpp solo daal moom mooy kuréel gi dana dem représenter Argentine ka noonu tamit am na ay mbokk taalib yoo xam ñu ngi ci Argentine te newuñ ci kuréel gi tamit am nañu yéene ànd ak waa kuréel gi am nañu yéene dagg seen i dem kon ñu ngi xamal waa dëkk bi yëpp niit lu yaatu la képp koo xamante ni am nga yéene teew ci euh, journée xasida Argentine bi euh, journée xasida Brésil bi rek ñu ñu xam ne la 20 avril la bu dee wàllu kuréel gi nag moom ñun ñu ngi fi war a jóge le 18 ci suba incha allahu rabi ndax xëy na yoon yi ñu war a jaar xëy na mënoon nañoo ñu bari mënoon nañoo dem direct waaye dañoo bëgg àndandoo ngir kuréel gi mën a mat moo waral ñu am yeneen yeneen yoon yi ñuy choisir yoo xam ne du nekk direct waaye gëstu nañ ko it ba xam ni lépp mën naa ne e, te duñ ci am benn jafe-jafe kon xëy na li ci des li ci des rek mooy ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci tawféex ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm fekk waa ci jàmm. ñaanit suñ borom nangu bis ba ñuy tas ceeg tawfeexu sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér inna laa maana jaar na fàtt naa ko sax am na ci ñoo xam ne wallahi lazim japon japon dañ fay jugee sànq maa ngi koy wax góor mi ci yoon bi ñëw ba ba Brésil gii xam lu leen fi indi café Golobo lañ bëgg naan barki sëñ Tuubaa vacances la ñuy jël laa jugee japon ñëw ba Brésil Golobo moo leen fay yóbbu am na ci ñoo xam Ipanema ak Copacabana moo leen di yóbbu Brésil muy ñaari plage yooyu te ci caaxaan képp lañ ne barki Cheikh Khadim kon defe naa ne buñ ko jëlee teg ko sañu kanam wallahi bu buñ dee dem Brésil gii ngir jëmmi màggal sëñ Tuubaa gi màggal ko si dem yi wallahi lazim xoolal lay warta am ñun ñëpp war a dem Murid Sadia kuréel gi yëpp war a dem dama ci bëgg a yegg parce que nit ñi sax nañ koo tuddee daanu mais bu sëñ bu sëñ Muntaxa Mbàkke tuddee mbirum xare rek damay jàpp ni man ku demul ku demul te wallahi lazim xoolal lay bi tax ngay war a dem ñun ñi ñëpp dañ laa war a seeti suba hôpital dama ne ku ci demul laa lay bi tax ñun demoo ñun ñëpp da laa war a seeti suba hôpital bu dul loolu day xoolal xaw tuuti nga xaw a bokk ci ñu woote xare jàmbaar yëpp jug nga daw ginnaaw ndax kuréel gi noonu la war a demee warta nooy de ñun ñëpp war a àndandoo takk laxasaay yi ku baax biñ ko tàmbalee rek am na yërmande ju rëy ju am ci suuf li lay wan ni lay day jeex mooy yéen ñii wax ngeen ne seen biir dégg naa ko ci audio bu fekkee nit économiquement la jàppandiwul bu jaaree suuf ñu dagg ko man dégg naa ko ci groupe bi léegi nag bu dul économiquement dama ne ku ñu fekk law lalu hôpital mu tëdd ñun kuréel gi yëpp ñu dem jàngali koy xasida ngir mu teel a jug moo war a tax demul Brésil barki Cheikh Khadim waaye bu dee yoonu Sénégal la yoonu Sénégal man giñ naa ko Cheikh Khadim ne am na ñu ne ci kuréel goo xam dañuy dem Sénégal te pourtant dañuy dem Brésil ñibbi si te diir gu gàtt di ngeen dégg taxaar nañ laxasaay dem Sénégal kon du lay rek waaye nañ leen àndandoo ñun ñëpp taxaar te jàpp ci liggéey te xam ni kuréel gi léegi-léegi nag fi mu war a méttee dañ faa war a gis ñëpp nag loolu faw ñu bàyyi ci xel te def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa ki rek tax buñ ko defee danañ ci am ndam biir ak biti waaye nañ xam ni daal bis dana ñëw de bis dana ñëw wallaay lazim ay nit danañ wax ne diw at diw ak diw ak diw sa baay diw at sa baay diw at sàngam demoon nañ nangam ak nangam màggal màggal la sëñ Tuubaa xasidaam yi ci arab sàngam te yooyu day wees te jotaay yi nga xam ne nag sëñ tubaa wax na ni bu keroog yombal xiyaama itam dañ koy dañ koy feddiliwaat genre jotaay yii la kon yàlla na ñëpp jàppande ci ñoom ba ñu dem cee jàpp waaye maa ngi koy ñaanaat di ko ñaanaat barki borom Tuubaa Mbàkke képp koo xam ne économiquement moo la ci dal gisal Baye Cheikh Diène wax ak moom barki Cheikh Khadim am na ay góor yàlla yu ne ci kuréel gi yoo xam danañ jàpp da nga dem wasalaam barki borom Tuubaa

wa